gën a jàpp nag que cour bi newul Khalifa Sall yow de teggil ça la sa ay droits civil. et civique. donc lolo amul multi décision bi kon nag ne que ba tey jii Khalifa Sall mën naa doon candidat mën na nekk électeur itam ñaareel bi gis nañ aussi que cour moi aussi pas presque nangu na jalgati

léegi ñun ñii di layool Khalifa Sall danañu fexe ba jot décision bi danañu toog waxtaan suñu biir ci jamono yi di ñëw suñu kanam danañ ci jël ay matuwaay jël ci ay décision ñun dañu jàpp ne que loolu su jalgati amee mais sa avantage la dooni nit ki jalgati nga rectifier il faut nga seetaan leen loolu lañu ñu def dañu leen seetaan ñu def seen jalgati ba noppi léegi nag su waxtu wax loolu jote ñu ñëw nag wax ko boobu waxtam jotagul woon loolu rek moo ko waral.